man la Oumy Gaye maa ngi jéggulu parce que Ablaye daf ma porter plainte nee na attentat à la pudeur laa def pour ñi nga xam ne dégguñu français attentat à la pudeur mooy maanaam yàlla bindee la noo xam ne yàlla la ko bindee nga génn nit ñi tàggoog seen sago man nag réalisateur làmb yu bari xam nañu am na sax may wooyee bombardier bu jigéen am ñu may wooyee Yékini woowee façon tur bu nekk ba barki jéem am naa ci kenn koo xam ne mu ngi foofu fajaa damaa wu siise newoon na ma bu làmb jigéen amee sax dinaa la waaye yàlla moo ma bindee nii ku ma gis tooñ na kaf billaay damay bëgg a dem stade làmb mais du bëgg dem am na ku ne ma am na mbër boo xam ne yaa koy daaneel bu la gisee rek tey eh, dootul day perte équilibre am te pourtant fii la bëri adversaire am woo ma ne ma dégg naa diw yaay tax mu mu perte ak équilibre am doo ñëw seetaan si wóor na yàlla buntu stade laa yem réalisateur yi nekk ci télé yi di def lamb yëpp yëpp dar ma naan dañ may interviewé te du ma mbër yàlla nag moo bindee noonu am na ñoo xam ne am nañ jabar waaye dama leen di suturaal man ni ma mel yàlla ma ko bindee bi may nekk Miss Jongo ma forcé wu ma ko yàlla moo ma ko bindee waaye jël ma def ci internet bi làq sama doot te jigéen laa damay ñaan yàlla am ëllëg jëkk kon benn yoon moom Ablaye Ndaw mu jël ma daf may yóbbu naan daf may porte plainte lan laa ko def man li ma sol dafa yiw ba bëgg a dee xëy na ni ma yàlla bindee moo débordé waaye loolu absente la ndax ci laay rek la samay problème yu bari ndax góor bu la gis teral la te ñàkk koo fayda dama gàdd sama dignité kenn du ma gis ci auberge kenn du ma gis ci hôtel sama kër ndey laa toog donc man lii def ma metti ba ci kanamu yàlla sénégalais yi nag yéenay jugé man Miss dong ma soo gisee ma dem fa sax dañ naa forcé laa jal gu Miss nit ñee ma forcé ne da ngay dem waaye kenn ku nekk la lay yàlla bindee man Ablaye Ndao bi may dégg tuuram ak cooli foogoon naa ne ku mag la sax waaye gune gu ndaw la. waaye comme que loi moom loi la te procureur dafa ne ma kii dafa déposé su la baalul dans les 72 heures ci kaso bi ngay de parce que attentat à la pudeur la man nag dama xamul nag fekkee ne man du ma citoyen na Macky Sall la wax ak réew mi maa ngi woo ministre de la femme di woo Aminata Mbengue Ndiaye di woo les grandes dames yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi nañ ma jàppale parce que man nii la ma yàlla bindee du ma fi nekk di régime la lañ bëgg ma bañ a dem xew. bañ a génn te bañ dem ñu ne su génnee damay def attentat à la prison yàlla bindee ma nii man waxuma yàlla mu bindee ma nii xale laa nag ni may gisee nii macha allah 23 ans dong laa am mais nii la ma yàlla bindee ñu ne ma damay toog sama kër bu ma sol yore olof fuñ ko teg te yàlla bindee ma nii li ma yàlla bindee nag loolu moom xaaral ma jël sax sama téléphone. mus leen gis ay ñuy rogganti waaye rogganti moom ci man ngeen ko gisee ñu ma yàlla bindee ma yàlla bindee yàlla nag ñu ma bindee ma yàlla bindee moo metti kii nga xam ne mooy gis nga nii la ma yàlla bindee soirée bu ma dem du ma jóg leen wax ni ne du ay kaf nii la ma yàlla bindee kon li fekkee nag moom ci boppam nee li ma sol moo ko metti dafa transparent day wax lu ko neex xam naa dafa yaakaaroon ne man meluma nii waaye bi mu ñëwee ba tiima moom Ablaay ba xool ma ne ma ndax danga feebar ma ne ko du feebar mu xool daa di may kaata ma ne ay mu ne ma ah kon sa yaram la bokk xamoon na ci la bokk ci lay soog xam ne nii la ma yàlla bindee kon nag ni ma yàlla bindee loolu laay téye moo tax ma ne ni la yàlla bindee ay ni ma la yàlla bindee man ni ma yàlla bindee loolu rek la ma doon gandi ko yéen may dégg kon lii nga xam ne moo indi tool ba journal baa ngi nii photo baa ngi nii boo duggee ci journal bi maa ngi nii li may wax dama bëgg mu leer sama photo ngi fàng ñëpp gis ko léegi. maa ngi nii sama photo ne faa nga ñëpp gis ko nëppatuma nii nag moo tax ma gañe Miss Jongoma du lu ñu poose